jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Abdou Samad doom ci Serigne Cheikhouna Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Ahad ci gàttal ñu koy wax Abdou Samad Cheikhouna tey nag ñu ñëwoon fas yéene am tuuti lu ñu bëgg a waxtaane ak mbokki àdduna yëpp ah, mu jëm ci wàllu réew mi ak dëkk bi yaakaar naa ñàkkul ñu gisoon fii bu yàggul ci benn taxawaay buñu ñu taxawee woon ci jamono yi ci ginnaaw ci xew-xew yi paase ñu meloon ni ku ànd ak Ousmane Sonko ci wàllu parti Pastef bi loolu amee jotoon nañ ci dégg sunu kàddu waaye kàddu yee ñu joxe woon fekkoon nañu am lu ñu nar waaye li tax ñu def ko mooy ñu waxtaanoon ak suñuy kilifa bi ñu jàllee bi mu jàllee itam ah kilifa yi ñu am ci dëkk bi yëpp waxtaan nañu ak ñoom ci lii ñuy bëgg a def ci lii ñuy bëgg dugg xam naa néewaa lu ma koy def mais tey dama koy officiel ñëpp dégg muy ci engagement politique ci kenn fànn muy taxaw tey pour jàppale président de la république Macky sal teg ko fu leer ak fu wóor ci bi ñu waxtaanee ak sunuy kilifa waxtaan ak moom ba noppi ñu déglu ko mu wax li mu bëgg ci réew mi ak coppeeku gi mu nar rawatina jëmale ko ci ndaw ñi surtout nag Touba bi ñu waxtaanee dëppooy xalaat mu sàkku ci ñi man ma bëgg ñu jàppale ko ma nangul ko ma waxtaan ci samay kilifa nangul ko ko ci biir loolu nag kon day jot ma wax ko àdduna sépp xam ko man nag su ma nekkee ci dara duma ko nëbb ndax xawuma ko waaye bis ni ko tey ñëpp xam ni fas yéene naa taxaw jàppale ko parti ba ma nekkoon doon ko jàppale génn naa ci ndax yu bari nag fas yéene ànd ak moom nag ci liggéey rawatina nag ci ndaw ñi nga xam ne ci laa bokk ci laa féetale sama bopp ma bëgg nag képp koo xam ne yaa ngi woon APR am lu la naqari comme ni ma ko amee woon tàll naa la loxo ñu waxtaan ku nekk benn fas yéene liggéey luy jëriñ dëkk bi te jaarale ko ci moom kon loolu moo nekkoon sama wax sama sama sama sama sama sama position tey ma ne wan naa dajale ñëpp wax leen ko bu ko defee ñëpp déggandoo ko ay responsable ñu ngi fi toog am na lu ma waxtaan ak ñoom tënk ko te fas yéene ko te nar ko politique man awma lu may lu may lu may lu may yokk wala lu may wàññi ndax bu ma neexee ne musuma am dara ci politique ci barkeb Serigne Touba laa doon dund xëy na lu ma lu ma bëgg la ngir lan am ci baat mën a jàppale ñi ma ñi ñi ko ñi ko yittewoo ak ñi ma ko seqal ak it bokk ci réew mi war cee participer ku ma jàpp ni déggoon na ak yow xalaat ma ànd ak yow ci loolu kon lii moo nekkoon waxtaanu tey wi ma bëggoon ko leeral ah ku ci am nag lu ma bëgg a laaj maa ngi lay déglu pour pour pour tontu la leneen li ci des nag mooy li may wax toujours li may ànd ak nit rek mooy làng ak moom respecté li ma koy wax moom it mu respecté li ma koy wax li li ma wax ñu ànd liggéey mu gis ci boppam mën a jàppale kii ko tax a jóg ndax kooku mën a am ndam kon nag ku ci am loo bëgg a laaj maa ngi leen di déglu. le territoire national Pikine ñu ngi doon ñu ngi doon fippu lan euh, dama jàpp réew mi ak àdduna moo am jafe-jafe xëy na nag. même parti bi ma nekkoon bu ma ci jógee jafe-jafe tax ma jóge ci xëy na am na ci loo xam ne dinaa ko mën a leeral am na ci loo xam ne duma ko mën a leeral ba tax na jàpp naa ni bu fekkoon ni lu am jafe-jafe ñu bàyyi ko fa kon lu bari na sax ci biir jafe-jafe yooyu nag ci laa bëgg a wanee sama bopp ba jafe-jafe yooyu dañ rawatina cëg ci fii ma dëkk muy Tuuba waxtaan ba jàpp ni war naa mën a nekk moo tax ma engagé wu ku ci topp Abdou Samad seex naa mooy baay waaw parce que laaj bi day xaw kii ci man ci ni nga ko war laajee ak ni ma ko gisee président li man mi ngi koy def donte nag ak àggul ci ñi ma àgg loxo mosu fee jug mi ngi doon def lim kem talay kàttanam xam ni nag àggul ci ñi ma àgg moo tax mu am changement boobu ngir bëgg li muy def mu àgg ci ñi ma àgg ñi ci war a jot ñëpp jot ci te yaakaar naa loolu liñ ci waxtaan tënk ko ci su nu ko ni defee yaakaar naa nañ ci am changement bu mag. bismillah jërëjëf li nga tàmbalee mooy li nga xamagul bi nga ko laajee dina am loo ci xam fi ma nekkoon li ma wax rek déception ak am lu la naqari xawma ko dama yaakaar benn baat bi la na li ci am solo mooy premièrement bu ma ciy dugg tàgguma kenn maa xool waxtaan ak leader bi ba war ci dugg dugg ci bi ma ci duggee ba ci biir it gis naa ci yu bari yoo xam ne ñun ñëpp gisandoo nañ ko man Touba lu ma am it sëñ Touba jàppoon naa ni xat-xat yi mu nekk ku ko nanguwul itam bi muy jeex kenn ku nekk xam na ni kilifa dina yee ci dugal seen loxo rawatina sëriñ Mountakha yàlla na ko yàlla yàggal te gën ko wéral te ba léegi gisuma ni li war diggante ma kilifa diine yi mi ngi koy dox ni mu ware ak ni réew mi jóge ak yàq yi ni mu bare man doxuma ci loolu dama am kilifa li sama kilifa joxañ ci lay nekk li mu woote ci lay nekk donc aussi su ma gisee ku wuteeg loolu nag sañ naa am naa sañ-sañu euh, sensé gis-gis comme yow fi ma nekk it wax naa ko li tax ma jëm si fi am na ci loo xam ne dinaa ko mën a leeral am na ci loo xam ne nag damay préféré jëf ko ndax dama jàkkaarloog àdduna di wax ak ñoom te yaakaar naa danañ tesewaat tesewaat tesewaat su boobaa dinaa tàmbali lu ñu mën a teg bët danaa tàmbali lu ñu mën a laaj danaa leen mën a dutal baram bismillah fi nekkoon ci politiciens yi du ci sori ndax jàpp naa ni kenn ku ne la nga jàpp ni mën nga ko yaa koy def man nag li ma soxlaa jàpp naa ni mën naa jàpp naa ni dinaa ko def te jàpp naa ni bu ma ko defee dinaa ko réussir lañ ma la ma la ma waxtaan nag ak la ma xam ak fa ma bëgg a jëm damay delluwaat ci li ma waxoon kii rek ma fas yéene jëf ko dox ko seen bët ndax ci dëkk bi la jëm ci dëkk bi laa nekk am naa lu ma fi xam am naa lu ma fi man te loolu it bëgg naa ko wan xam nga du dëkk bi rek moo ko tax a jóg ci ñàkk bokk gis-gis moo waral waxtaan ba ngeen bokk gis-gis ngeen mën a dem ndax fa ma nekkoon itam dañ maa convaincre ci gis-gis ak programme kon su ñu demee ba ab taxaw am sama diggante ak moom ma jàkkaarlook moom li ma naqari ma wax ko sama gis-gis ma wax ko lépp mu nangu kon du ma def lu dul nangul ko li ma wax ba keroog muy gis du ci dañ leer na du waaw dama leen fekk ci seenu tool ñuy bay kenn ku ne yaa ngi ci sawaar waar di bay ma dikk ci tool bi fas yéene koo yaatal fas yéene koo lëkkale ba ñu àndandoo su fekkee mën na nekk di yëkkateendoo di dóorandoo di liggéeyal nag loo xam ne mooy jëriñ askan bi mooy jëriñ dëkk bi dëkk bi mën cee gis seen bopp loolu rek moo ci sama taxawaay